yenn loole dana gën di wéy ndax buñ sukkanikoo ci banque mondiale ne daal téeméer boo jël dana toll tollu rek ñetti tombal ñaar ci atum 2023 waaye noo loolee sax dana yéeg nank rek ci atum 2024 ci lu tolloog téeméer boo jël dina daal di euh, am ñetti tombal juróom-ñeent moom la waa banque mondiale def gis nañ ne ci euh, perspective économique nga xam ne moom la daal di génne waaye gis nañ ne kat mbir mi xaw na lëndëm lool li nga xam ne daal mooy ëllëg ci wàllum koom ndax gis ne wàllum ñàkk gi day gën a métti lool. situation boobu nag nee na daal ñaari facteur moo koy daal di firnde ba ci njëkk waa banque mondiale daal di gis ne li nga xam ne kat mooy njëkk yokk yi le ndax bu fekkee ne gënoon ko wàññi. njëg li nga xam ne mooy njëgu denrée alimentaire maanaam la ñuy dundee loolee gis ne kat téeméer boo jël dana nu yokk rek ci yaa euh, juróom fukk sukkandiku ak lu tekk waaye ñu gisee tamit njëkk yi nga xam ne mooy intrant agricole yi maanaam wàllum pepp mi gis nañ ni dina xaw a nooy lool waaye tamit lay sabab bi mooy ay jàppante yi nga xam ne dañ koo nemmeeku ci yenn ci uh, bërëb ci uh, àdduna rawatina ci Afrique gis nañ tamit wàllum coppite ci toskar ak alam bi am na ci bu ñu sukkandikoo ci banque mondiale nee na yooyu li koy gën a métti nal mooy wàllum ñàkk gi ak li nga xam ne mooy ñàkkum lekk ñaareel bi mooy croissance bi nga xam ne mooy gën a yokk ci Afrique lool loolee day gën di wàññeeku lool ñu gis ne Afrique du Sud moom moom dana ko pénaliser lool ndax gis na ne wàllu ñàkkum courant moo fa gën a bëri ak li nga xam ne mooy politique intérieure yu métti ñu jël teg ko ci kaw askan wi. ca Angola moom ak Nigéria bu ñu sukkandikoo ci banque mondiale ñi nga xam ne mooy ñaari dëkk yi wala sax ñaari ponk yi nga xam ne ñooy produit wàllum pétrole gis nañ ne seen dynamique ci wàllum croissance dafa dafa daanu lool. lool la koy firndeel mooy wàññum euh, njëg li nga xam ne mooy wàllum énergie. banque mondiale nee na nit ñi dañ gën di yokk tur tolloo ko fanweeri million doomu aadama ak juróom ci ñoo xam itam gis lu ñàkki gaal nar na leen laal lool